wàllu dem beeg dikk bi am na tan si lii wër pont bu Kër Massar woto yi ak ñi yor seen tànk ñoo ngi dox te amuñu jafe-jafe yu bëri. li nag gannaaw bi fi mairie bi amale ab opération de déguerpissement jëlee fii ñi doon fatt yoon yi am na léegi ñaari ay bés. Kër Massar aujourd'hui Kër Massar doon na gox gi nga xamante ne nag ñu bari dañ koo taamu jaaykat yu bari yu bàyyeekoo ca Colobane wala Petersen dañuy ñëw daal di wutali Kër Massar loolu moo tax nag ñu bari daal di nekk ci place publique bi amaloon nañ ab opération de déguerpissement ñaari ay bés ci ginnaaw wante nag jaaykat yaa ngi ñëwaat. mais jusqu'à présent on, on que les les ces ces commerçants reviennent. xàll nañu yoon yi waaye lu ni mel nag si kaw marchand ambulant yi la këpp ñu am nag lu leen metti ñenn si ñoom sax tàmbaliwaat nañu di ñëw di lal fi ñu leen jëlee woon. njaboot gi ne fii yaa ko gisal sa bopp ay yaay booy ay papa ay jeunes yi am job sa yaram day daw ñun ñii di da ngay xëy sax ñu lay jàmbat yoo xam ñii di am heure na ñii am problème te yow ay jaaykat nga comme ñoom. donc muy métti sa xool te mënoo ko faj. mairie bu Kër Massar jël na sax ab foire jébbal ko ñi ñu yëkkati si tali bi waaye nag nee nañu place yi si bile marché dafa néew lool. ñu eh, 2000 personnes genn wàll gi dugg nañ genn wàll gi dugg nañ ñenn ñaa ngi taxaw mais amuñu loolu mooy li nga xam ne moo ñu gën a métti suñu sañoon nag ñu xool askan wi suñu leen organisé pour ñu nekk fa liggéey loolu mooy li nga xam ne moo ñu gën a ñëw loolu daal lañu ñu bëgg. lu ëpp junni ndaw. fii ci commune bu Kër Massar ñooy jaay ci mbedd mi ñeent fukk ak juróom-benneelu département bu réewu Sénégal amul dara loo xam ne ni ndaw yi mën nañ ci sukkandiku ngir am xëy su weesoo njaay mu ndaw mi ñuy def.